Seex Bamba naa yaa qawmi sababu xaybat yaram réew mi sababu xaybat ya anna la araada an yanaala min ujaa wa an akunu saafi an lii qawmi wa an akunu qaadiman fii dawmi ca mooma an la Bamba sanci baari bi isni xaaliqil baraaya baari fekkoon na taalibe ya gor ca mu romb góor ba góor gu yàlla yeela ba mu amee juróomi weer fa baari di dugg xalwatu di ñaan lil baari saytaane dem ruuxale koog nasraan bi ne leen jaar lay fexe fii sodaani tubaab ba yónnee fa wisit lu di seet balak doom gis fa téereeg war ga ca mooma at la yàlla xar seen xol yo def ca ragal seex bamba soppi xel yo ca mooma at la yàlla xiir borom ndar mu woo sëriñ Tuuba mu wujji leen ndar Bamba yabal maam Ceerno Ibra Faati mu wujji ndar di nuroog gayndeeg baatin mu boole koog waa juñ naan Demba Kebe tubaab ba naa leen Bamba laay fa bi ebe ba mu demee ndar noon ba yor leetar ba ne leen garab banqaas ba mooy tiitar ba danaa fulet banqaas ba deji buut ba sànni ca àll ba tasaare tool ba ma abduloo kalaame koog borom ndar ak ibra faati ñu dëkke dar dar joortoo ko lam du jul be buurum ñooro ca moomaat la teeñ tanoor kalaame sayxi bawal ngir bëgg a fay lislaam bi jarbaat ba moo jébbul woon dem tuubi ndeyam di jooy mu naa ko tuubi ruubi seex baabakar cargaan sëriñ mor maane sëriñ Aliou Diouf ñi lee ko daane keroog dañu ne waaw fa pencu lambaay ne leen danaa leen tàggale ki laxasaay keroog dañu ne boole sol ci wuur mbal ñii kenn kennoo far ba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal dammu di boole dóor ak yeew far amul jàmm tanaa baleen Seex Bamba mbaa ma rendi murit yépp ma nga naan ba mandi murid ya naa ko bamba nus na ruuyi yow ma alastu yow faral tey nooy sëriñ ma marmaane ko tontu booba ne ko dangay kàcc dañuy dem Tuuba fole tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk dangay tis pencu ma dal di jaxasoo ak murid ya xaacu mbar ma laxasu ñu ñëw tuubaa xibaar ko bamba mu xëy na na leen ko tas naa jalba ceddo ya dem kalaame koog borom ndar mu naa da ngeen mokk ba mel ne aw dër ca yooya at la teen tanoor kalaame sayxi ba wal ngir bëgg fay lislaam bi jarbaat ba moo jébbulu woon dem tuubi ndeyam di jooy mu naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Cargaan sëriñ Mor Maane sëriñ Aliou Diouf lamba ñi lee daane ca alla teeñ tanoor nar meelu boobee la rey mu sàmminiin wandiilu keroog la gàddaay wuti réewum ñooro di fekk lam du jul be gaayay liiru ba mu demee ba weesu réew mu saalum ñu war ko mbër ma del si ne maalum keroog la fekki bamba ngir tuubal ko cheikh bamba na murid ya ngeen jéggal ko ca mooma at lañ génnee cheikh ya tuuba di aaya jël ba di aaya tool ba taalal sëñ bi daal di fay fa tuuba ak mbàkke cay teeka wuuteeg booba mu daal di woo sëriñ ba boole koog sàmba buurub jolof mu daal di ànd bamba nee na keroog ba mu xëyee ilaa safar yàlla ka booleeg Mustapha ahlul badar ay yasamini laahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawali nee na keroog ba muy rañaane kokki ba yendu lugo gisatul waa mbàkke bur yàlla xaati bante naag moom laaya isa laqitum fi atan ne gaaya keroog la yendu lugar yow ma te nga fetal ji aar mu ne inna laaha teg yu daafiwu hani lasiina aamanu yaa saafiwu fala julee keroog salaatul hasri hinda safinati bi xayril usri bam salmalee la tàbbi gaal ga jëm ndar di sama ndaay ab jant mbaa weeru badar bam sëlmalee la tàbbi gaal ga ndar di sama ndaay ab jant mbaa weeru badar ba mu keroog ne na ba mu nuyoog borom ndar la ko boromam dal di wax la muy nar fasbir kama sabaru ulul asmi lañ fa xaati bante bàmbaay mbër mi mu dal di jaari kër amet xuraysin ngir la mu càllaloo ca ñooñ quraysin seex bamba julli na fa ñaaru rakka ñaan fa boroomam ngërëmal njool makka keroog taalif xasid asiiru ca at la am sëriñ basiiru keroog ba muy taalif banaa xuróoru ndawal borom ndar woo ko mbër ma muuru yan nag yoonoo nga naa ko ñaanal dàppeel borom ndarab gan am na moo lay appal xaniitu billaahi عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب la Bamba wax yéen nangu wax ko duudu antal pareet ba mooy borom tamidu borom ndarum Ndakaaru daal koy woolu bu tudd capitaine su ja nan ko moolu keroog doon bëgg ya njool Makka aaya ko mu jéggal noonu ya ya rabbana innal wara tadarra'u li awliyaika mahan li yasfaw ilayka ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fakun lana wajih lana lutfan wa amnan ya ahad ya man ta'ala lam yakun kufuwan ahad ya rabbi najjina min asseytaane wa jawrati aljirani wa sultani wa kullu nafisin ala aluqudi wa salimin wa habidin asudi wa tariqi situri taslili wa kullu talmisi wa silbalili fabidu بالدهاء يصرف البلايا وبرجاء ياجد الأتايا ننتج أحمد اللمين moom la ñu may siral machuun xar baax la feese baneguun bàyyi baa ko lam ci xarnu bi nantag Seex Sidi Muxtaar moom la ñu may siral masoon xar baax la feese baneguun bàyyi baa ko lam ci xarnu bi Cheikh Sidi Muxtaar sañ-sañ bala doone ci ñoom jagle ga jiitu na ju doom mbër mu ko suuru daal luum meram xajul ci xarnu bi Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke rijaal ya xam nañ dara bu nee jalañ ñuy jaam naram naram di safi mbaam raamal ko war na xarnu bi Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke bu ñu teewee ëllëg ca xaadimu rasuul Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke sa du suulun ginnaane Mbàkke yaay borom maqaama làqu nan fi yow keroog bisub qiyaama subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin